marhaban bikum amis fidèles jeunes toxna di Topp Info TV Sénégal dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci wàllum actualité bi actu du jour ñu doore ko ak lu soxal wàllum njàng ak njàngale université Cheikh Anta Diop bu Dakar gannaaw ay weer ngi nii kon dañu ko tëj gannaaw émeutes yi nga xamante ni kon moom moo di moo fa amoon bu ñu jàppee ki nga xam ne moo di leaderu Pastef yi Ousmane Sonko manifestation yi nga xam ne amoon na ci biir université Cheikh Anta Diop bu Dakar ba juróon fa ay yàqu-yàqu yu bëri amphithéâtre yu bëri ñu daal di leen fay taal taal li nga xam ne kon moom moo di bibliothèque li mel nag taxoon kilifa yi jël dogal daal di tëj boobe université ngir mën a amalaat li nga xam ne moo di liggéey ga defaraat ko ba mu gën a mucc ayib ñu bëri nag doon yaakaar ne daañu ubbiwaat université bi ndax jot na li nga xam ne moo di atum njàng meek njàngale mi daal dinay door étudiants yi war nañoo delluwaat ci fi nga xam ne kon moom moo di amphithéâtre yi mën a continuer seenam njàng waaye nag loole nga xam ne ñu ngi ko doon jort ni ki ëllëg booy mootuyuloo kon étudiants yi dañu des di toogandi ci seeni kër ba jëmi jamono wa ñaari weer ndax bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi université ba liggéey ba yembagul ba léegi des mën ko mottali ba tax na kon étudiants yi yi boo moytuwulee daañu xaarandi fii ak ñaari weer rek ngir ñu gën a mën a delluwaat ci fi nga xam ne moo di université Cheikh Anta Diop bu Dakar addu ba tey ci lu sox ci wàllum actualité bi Khalifa Sall njiital coalition bi nga xam ne kon moom moo di taxawu Sénégal wala plateforme bi ñu mel nag jamono ji xam ngeen ne mu ngi amal ab tournée boo xam ne mu ngi ko tuddee dox mbokk mottali yéene dox mbokk mottali yéeneem googee nag da mooy tuulee kon ci ay jafe-jafe loo koy mottalee ndax euh, tournée bi nga xam ne mu koy amal niki samedi bi kon ñu weesu rek dañu ko daal di interrompre bi mu am ay perturbation yoo xam ne am na ci fa nga xam ne moo tolloog la boobee nga xam ne kon leaderu taxawu Sénégal bi mu ngi doon amal ab tournéem gendarmerie daal di koy arrêté euh, aaye ko ngir mu mën a dugg foofee ca dëkk boobee li ni mel nag naqari na lool ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall moom nag nee na amul benn mbindeef kon bu ko a tare ngir mu yëggali li nga xam ne kon moom moo di tournée bii nga xam ne kon mu ngi koy amal moom ancien maire bu dakaar ñu àddu ba tey ci lu soxal wàllum actualité bi wax ci lu soxal ki nga xam ne kon moo di leaderu Pastef bi la di Ousmane Sonko moom nag gannaaw boo xamante ni kon dooraat na li nga xam ne kon moo di grève de la fin bi nga xam ne kon mu ngi ko doon amal euh, moom nag bu ñu sukkandikoo ci ay avocat am kenn ci ñoom ki la di. maître Ciré Clédor Ly nee ne avocat client bi la di Ousmane Sonko kon dafay sàkku ne nañu ko delloowaat ci prison ba ndax uh, jamono jii kon loolu rek la bëgg moom Ousmane Sonko te état de santé moom uh, foo ko nattu weesu na ko maanaam kon ba tey jii kon amul benn wér gu goo xam ne am na ko moom Ousmane Sonko moomee sax bu ñu sukkandikoo uh, ci ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di ay mbokk yi nga xam ne ñoo koy jàppale ci benn Cheikh Tidiane Dièye ci conférence de presse bi nga xam ne kon ñu ngi ko doon amal tout ci gannaaw tuuti rek Cheikh Tidiane Dièye di xam ne nekk nga xam ne moo di Ousmane Sonko dafa am malaise ba jamono jii kon Euh, médecin yi ñoo ngi koy euh, toppatoo ñoom nag ci conférence de presse boobu nga xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki tey jii kon ci altine ji jaare nañ fa nag artu ki nga xam ne kon moom moo di njiiti réew mi Macky Sall na lépp loo xam ne kon dal na Ousmane Sonko rek moom mooy nekk li nga xam ne moo di responsable bi ñu woyandi ba tey ci li nga xam ne moo di wàllum actualité bi wax ci accident bu métti bi nga xam ne moo am eh, ni ki eh, démb fi nga xam ne kon moom moo di ci eh, Kaolack Ndangaan fa fi nga xam ne kon moom moo di këwoon benn borom Jakarta boo xam ne ay atam mu ngi toll ci 32 ans moom nag moom la fa ab camion malien daal di jaar ci kawam mu jaaree fa ñàkk bakkanam ki nga xam ne kon moo doon dawal Jakarta bi nag gannaaw boo xam ne kon mu ngi doon dara jàppe rek eh, di moytu fan foofee kon ci la mujjee glissé camion malien bi daal di jaar ci kawam mu daal di ñàkk bakkanam mbir mi ni nag mu ngi am ni kii démb fa nga xam ne kon moom moo di ci eh, kawoon eh, ki nga xam ne nag moom moo di néewub borom Jakarta bi daal di nañu ko yebu fi nga xam ne moo di hôpital régional El Hadji Ibrahim Niass bu Kaolack ki doon dawal nag camion citerne bi nga xam ne kon moom moo di ab malien ñu ko téye fi nga xam ne kon moom moo di ci gendarmerie bu Kaolack. ak gaal bu yëpp ay doom Sénégal moom moo réer mër ci géej gi lu tollook nekk quatre-vingts candidats ñoom ñoo nekkoon ci biir gaal googee nga xam ne kon depuis fukki fan ak juróom-ñaari sa ñu ngi ci biir géej gi kenn mënul leen a gis xamuñu fu ñu féetee nag ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di euh, waa Horizon Sans nag ñoom ñu ngi sàkko nag ci ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di kilifa yi ñu jug taxaw temm kon ci ñi nga xam ne kon moom moo di gaal gi nga xam ne dafa réer ñu daal di leen di càmbar ba daal di koy gis ndax lu tollook 80 euh, ci ay doomu Sénégal ñoo nekk ci biir euh, gaal googe mbokk yi lii mooy li gën a nu fas ci wàllum actualité bi woy leen di ñu topp leneen li ci gën a fas tànc dellu soit ni mu gën yaatu waaye laata loolu ñu naa leen jàmm